di leen bala ak di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal nangul ñu suñu mboolee mi jaamu yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu taxawaay boole ñu ci ñi nga xam ne da leen di goreel ci sawara di sant yàlla ci yu ñu defalee tawfiq ba ñu tàmbalee ko ci bismillahi irrahmani irrahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin Eh, yàlla defal nu ci taw defal nu ci tawfiq yàlla na nu dolli tawfiq kon ñu ngi dellusiwaat ànd ak yéen ci jotaay bi ñu bokk di jotaayu fatawa tey di jotaayu ñaar téeméer ak fanweer di deux cent trentième émission di dalalaat cheikhana docteur Mouhammad Ahmad loo ci jotaay bi di wax mbokk yi rek ne fan yee ci ginnaaw xat-xat yi rawatina fan yu mujj yi ci koor gi ak euh, xatu programme ñàkkul moo tax mu am ay ay bis yoo xam ne jotaay bi amutoon ñu ngi ciy jëggalu kon Cheikh naa ñu ngi lay jox kàddu gi rek nañ ko baaxoo defee nga tijjil ñu jotaay bi su ko defee ñu jublu ci liggéey bi. inna alhamdulilah na wa nastainuhu wa nastaghfiruh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 deret du gis ngànt lim demee nag ci biir aj gi nee mu tàmbalee gis deret joo xam ne daal xamul lu mu doon waaye daal njort na ni ñàkkul deretu mbërëg la deretu règle la mu ne nag rawatina ci bisu tabaski gis na ko te dafa jàpp ne daal waru koo gis waaye gis na ay toq-toq ci deret jooja waaye mu continuer ajam rek ndax jàpp ne du moom boobu ba léegi nag nee na sik sàkka day da koy dikkal ndax moom dafa def ay ponk ci aj gi yoo xam ne ba koy def laabut te daa waroon a laab wala boog ajam daa nanguwut wala dafa waroon a aji dafa war a del delliwaat aji sik sàkk yooyu daal di ko dikkal mu indi woon ko ci fataawa ngir sàkk ci ay leer alhamdulilah doom yi nga xam ne wala garab yi nga xam ne jigéen mën na koo jël mën a def ak jaamu yàlla am te waxtu bi mbaroon a gis baaxam du ko gis euh, jaaroon na fi ndax dagan naag daganut ñu waxoon ne warum xam-xam yi liñ ci ubbee mooy su fekkee amul ay lor yi dellu ci wér-gu-yaram su boobaa aj aj baax bi ba def jaamu yàlla am moo xam koor la moo xam aj la du wàññi dara su fekkee moom bi mu aja da ko def ba noppi nag teewul deret di génn jigéen ju nekk war naa xam deret ji génn wan xeetu deret la su ko wóoree ne deret jëm daan gis ci période am moom la gis kooku dana ko wane li moom deret baax la maanaam mbërëg la su boobaa nag loolu kum fekk ci aj man ngaa def mboolem li ñuy def ba mu des tawaaf ak julli doo tawaaf war kaaba gi waaye mën ngaa def yeneen jaamu yàlla yi ci des mel na ne tawaaf bi mu tudd wala bis bi nga xamee ni ci la ko gis mooy bisu tabaski ba bisu bi nag loolu moom su ko ci gisee it njuumbul lu simple la bu xamee nu mu war a def ak ajam man naa bañ a yàqu jamono yi mu koy gis mën naa bañ a tawaaf ndax tawaaful ifaada du jaagini ci bisu tabaski bi rek lees koy def dees na ko def ci mboolem ayaamu tashriq am na sax ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne mboolem weeru dul xijja wi mënees na ca def tawaaful ifaada li feeg weeru tabaski bi jeexut loolu nag su boobaa sa digganteeg fa weer wa di jeexe daanaka dana mat ñaar fukki fan kon fu mu fa demee ba set rek mën naa dikk daal di def tawaafam ak ajam daal di mag waaye nag su fekkee laajul ba mu waree laaj daa jekki ba yooyu yëpp weesu moom nag mooy xam mu def nan la ndax ba muy tawaaf deret jooja ngay génn ak ndax deret jooja deret yi bërëg la yooyu ci moom lay gàllu su wóoree ne daal dereti mbërëg la te ba muy tawaaf mi ngi ak deretam kon na xam ne mm, tawaafam moom baaxut tawaaf ya su baaxul moom aj ga baaxut ndax ponk la euh, su ko defee loolu yi muy junj di wax ne su ma ajiwaat mu dem ajiwaat saa ko ma nee mu dem defaati farataam euh, li muy junjaal di wax ndax danañ nangu ajam ak duñ ko nangu nag loolu moom ajuwut ci fatwa nangu ak jaamu yàlla kooku ci sun borom tabaraka wa lay dellu yàlla na yàlla nangu suñu jaamu yàlla noonu yëpp naam jazakumullahu xeyran cheikhana kii nee na dafa tàmbale woor euh, sitta shawal jot caa am ñeenti fan mu ne mu fàttaliku ne moom dafa amoon ay bori yoo xam ne moom lim jàpp mooy dafa war a fay ba noppi soog a gunge ci niñ koy waxee mu ne nag comme am na ci ñeenti fan soog a fàttaliku loolu nan lay def. alhamdulilah ki nga xam ne daa tàmbalee woor juróom benn fan yi ci weeru kori bi eh, fàtte woon lu aju ci ne yore bor ci koor wala mu réere ne ku yore bor da nga ko war a fay ba noppi mu jot a woor ñeenti fan ni muy def. mooy ñeenti fanam yooyu na ko fa ne kupp denc ko fa te dem fay ay borom ba mat sëkk mu del si wooraat ñaari fan yoo xam ne mooy mat li juróom benn fan yi wallahu taala alam ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi day laaj nee na ab jullit boo xam ne daa yor këram di ko luye ndax sañ na ci lislaam mu jekki-jekki rek ne dafay yokk daal li xam ne mooy location bi waaw nga xam ne ndax lislaam jox na ko sañ-sañ boobu wala am na feneen fu mu war a jaar bu mën a def loolu alhamdulilah lu aju ci wàllu ay location lu bari ci ay njaayante ki jëflente sax yi dox ci diggante doomu aadama yi lu ci bari charia da koy bàyyeeg état ñu réglementé ko loolu la ñu tudde at taratib al administration ba tër charia da koy valider su fekkee ne tooñ nekku ca kii luye am na luwaa yu koy réglementé su fekkee si na contrat boo xam ne wax nañ ci lam war di fay weer sañu te yokk li fekk contrat boobee jeexut bu ko neexee nag bu contrat ba jeexee mu ne waa ji kat ba lañ ko yeesal man damay yokk nangam su fekkee ne d'accord na ci alhamdulilah si mu bàyyil ko fa këram moom it mu seeti beneen client ndax nit ki bu fekkee ne day luyee mooy jékki-jékki rek lu ko neex mu ne lii lay luyee wala su day jaay lu ko neex lay jaaye déedéet su fekkee ne seeraay ba dafa jéggi dayo loola du ko sañ lu jaaru te xel nangu ko daal loolu lañ ko may waaye su jéggee dayo waxuma ne ko fa kuppaleefam seeti keneen waaye su fekkee réew muñ organisé lañ këy luyee am na droit dellu ca ña teg xamal leen ne kii muy def dafa jéggi dayo ndox kër gi nangam ak nangam la mel nee na ma nangam la koy luyee te loola jéggi jéggi na dayo jaaruwut awaa loola sax jullit bi moo war a xool digganteem ak ay moroomi jullitam wala ay moroomi doomu aadamaam xam ne la muy jëflante ñoom li ca gën a yomb te gën a tegu ci tollook man-manu nit ña su ànd ak yéene ju sell loolu mooy ëpp barke kon xoole wet googa moo gën di xoole wetuk alal ji na gën a bari rek doonte na muy dikkee ay ñaqi doomu aadama la yoo xam ne ñàkk pexe moo tax ñu nangu ko su boobaa alal ju mel noonu barke mën na koo sori te alal bu ko barke soree mooy tax du law wala bu lawee day xëy xëy ne këlëb rek dal di yàqu naam barakallahu fikum cheikhana soxna si day nee na yàlla da ko booleeg borom kër goo xam ne mi ngi liggéey ci banque waaye daal moom daf dafa jàpp ne daf leen a sàgganee ci dépense ndax du lijjanti ndax ndikki nañu du lijjanti ndax añ nañu moom daal su liggéeyee ba wàcc ci ngoon daal lu mu am rek teg ci loxoom léeg-léeg mu teg ci loxoom deux mille moom daal dafay jàmbat bu baax a baax a baax néewug lam koy jox muy laajte nag moom ban taxawaay la war a am ci loolu waaye di sàkku it ay laay laaye biir gu jëm ci góor nan la war a téye soxnaam rawatina ci wàllu dépense alhamdulillah borom kër bu yor ak njaboot day dafa am lu ko war ci ñoom seenub dund day moom la war warta am lum leen jox ba noppi bañ leen koo jox soxna Muawiyatu bnu Abi Sufyaan radiallahu taala anhu ñëw na ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa ne ko Muawiya day dafa nay maak samay doom du nu jox lu doy alayhi salaatu ne ko jëlal ci alalam loo xam ne dana mat seenub dund yaag sa njaboot sañ-sañ boobu lislaam jox na ko jigéen su fekkee boroom këram jox ko loo xam ne mën a dunde la lu ci seenug lekk ak seenug naan waxuñu nag lekk ba xaabaabal di di wala ngay muy des ngay yàqle déedéet waxuñu loolu waaye loo xam ne da ngeen ci mën a dund mu yem ci yéen képp lool nga sañ a jël ci alal ja su fekkee nangu koo jox waaye nga koy jëlal sa bopp la gën mooy eh, laayante biir ndax yàlla position boobu mu yor mu koo soppi fekkee nag da caa lot lot gi mooy benn amul lu ak njabootum dunde wala li muy am yor na ci ak njaboot ci ay béréb yu bari ba tax na kenn ku nekk lam lay jox mënta mat su boobaa it la jaadu mooy jéem ko comprendre waxtaan ak moom ba xam ne lii moo tax soo ko defee eh, jéem a sàkk rek pexe moo xam ne mu dagan lay doon moo wan des nag mun a jàppale ci ni muy yore kër gi su fekkee ak tële moo ko waral waaye su fekkee am na ba noppi de it nangu leen a jox loolu moom bàkkaar la ala kulli xaal wallahu taala alam asaabakum allahu cheikhana kii nee moom daal dafa bëgg ay leeral ci wàllu for for daal bëgg na ci ay leeral ndax léeg-léeg nee na mu dajeeg loo xam ne day jàpp ne lii daal lu ñàkk solo la loo xam ne soo ko doon laajte sax dañ lay ree wala kenn du la ci kenn du la jox Euh, kenn du jox fulla la ngay wax ndax tuuti gëmu tuuti lu mel ni cinq cent ak yi ko nuru mu ne it léeg-léeg nga for loo xam ne it soo ca toppee di ko laajte da nga sonn lool te doo mën a gis borom muy laajte daal ci for daal nan la ko nan la war a demee ak jullit bi yan taxawaay la ci war a am. alhamdulilah waaw loolu mu wax de dëgg la yi ñuy for moom seeni te loolee dañoo bokkut léeg-léeg mu tuuti tuuti waaye boo xam ne dana jéggi dayo léeg-léeg sax mu xaw a am solo waaye béréb ba mu ko fore ak na mbooloo ma baree ak na mu ñàkk a nekkee ci lenn luñ koy xàmmikoo kom wenn kayitu cinq mille francs rek wuy naaw tànk nit ñi di ko film yi dem loola pour xam ko ko réeral dana jafe waaye li ñuy laayee biir ci por mu mel noonu mooy au nga koy bàyyi noonu muy naaw di dem am ku ko mën a jël Eh, dem di ko jëriñoo ci loo xam ne lu daganut la loolu jël ko su fekkee béréb bu am ay jàkka la nga dem dugal ko ci keesu jàkka ja ñu fay ko courant wala ndox ma lu mel noonu yow mi ko for yóbbu ko foofa da nga ci am tuyaaba waaye ka ko réerle itam dana ci am tuyaaba su fekkee ku yeyoo tuyaaba la naam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi day laaj li nga xam ne mooy ubbee ci biir julli eh, imaam du gag mbaa mu yàq nga war koo ubbee mu ne ndax dafa am ay teggin yoo xam ne kii ubbee da ko war a bàyyi xel ndax daal da ciy gis léeg-léeg ak jaxasoo léeg-léeg nga gis koo xam ne ca sàppe bu mujj ba la nekk mbaa mu ne ca bu digg ba mu ne ndax kooko war naa ubbee imaam mu ne masala moobu daal bëggoon na ko ci joxe ay leeral ak ay orientation alhamdulilah mu koy ubbee ci e, biir jàkka ci gannaaw imaam am na ay aadab muy ay teggin dañoo bëgg koy ubbee na nekk ci sàppe si sës ci imaam képp loolu moo tax dana jaadu ñi sës ci imaam ñu tànn leen buñ mënee nekk ñu mokkal alquran mooy la ca gën moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ masaan liqaam bay bëgg a taxawal day wax li yalini minkum ulul axlaami wannuha waroom xam-xam yi nañ sës ci man rëkk su ko defee dañ leen di tànn lu mat juróom benn ba juróom ñaari nit ñu taxaw ci gannaawam rëkk loo xam ne ñëpp ñu mën a teewlu alquran la ñuy doon kon loolu mooy bi ci jëkk ay jaaduwul am koo xam ne ca gannaaw lay nekk ñi ci kanam doon ñoo xam ne bu imaam gàggoon it mënuñu ko gàgganti bu juumee ci julli gét xamuñu àtte ba am ku nekk ca sàppe su mujj si di yëkkati kàddoom di yuuxu di gàgganti imaam loolu bokkul ci teggin yi kii gàggantee ci boppam te sës ci imaam dana jaadu mu doon luñ organiser ba ñëpp duñ àndandoo rek di di waxandoo benn yoon na ko kenn mingo koo xam ne dañ koy bàyyi moom koo xam ne ñépp xam nañ ak mokkalam alquran su ko defee loolu moo koy féetewoo su tolloo koo xam ne nag imaam gaaral na ku ko gàgganti te koo gàggantiwu ko ñu xam ne daa teewluwut fa imaam toll keneen ku sës ci moom door a wax loolu ci teggin yi la bokk bokk na ci it yow mi sës ci imaam di ko gàgganti nekkul charte ne da ngay yëkkati sa kàddu ba waa jàkka jépp dégg ko déedéet imaam ngay waxal te mu ngi ci sa wet sa digganteeg moom matul benn mètre kon waxal ndànk rek mu xam ko jaadu na it kii gàgganti imaam mu doon ko teewlu barabi runge yi nekk ci alxuraan ak barab yu nuroo yi nirale yi nekk ci biir muy ay mutashaabihaat yooyu jaadu na ma xam ko ndax léeg-léeg imaam na muy jànge noona la waaye moom mu teewlu leneen loo xam ne ci beneen barab la nekk mu bëgg a yóbbu imaam foofa loolu xeetu jaxase la woo xam ne léeg-léeg imaam di julli am gu nekk ci gannaawam di ko jaxase te loolu nekkut loo xam ne lu jaadu la kon daal euh, imaam bu dee julli maamoom ya nekk ci gannaawam nañu leen tànn te nañu leen jàngal itam nañuy ubbee ndax ñu mën koo xam su ko defee imaam dana mën a tari ab tareem saa boo xam ne dara gaar na ko lu mel noonu ñu xam nañu war a def su fekkee dafa jëma ci lu bokkut ak njàngum alquran mi it ñi xam lañ ko wax mooy subhaanallahi rek bu fekkee xam na lañ ko wax alhamdulilah bu demee ba yëg ne jamuj am na te imaam xamut lu mën mu doon su boobaa ñoo ca gannaawam seenub xam-xam war naa àgg ci ñi xam ne dañ ko ko war a wax naam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi day laaj nee jàngal xoraan ci biir julli ndax mën na am yàq gu cay am goo xam ne mën naa sax yàq julli gi loola daal lay leerlu ndax léeg-léeg nga gis imaam boo xam day yàq-yàq bu fese fese fes ci yàq yi am na ci yàq goo xam ne mën naa yegg ci julli yàq yàqu waaw yàq ci alquran bi daa am ñaari xeeti yàq mu luñ tudde laxnul jëli wal laxnul xafiy laxnul jëli mooy yàq gu fes goo xam ne day soppi maanaam alquran mi loolu su fekkee daa am ci fatiha moom julli ga day euh, su fekkee ne nag laxn la boo xam ne bu bu la boo xam ne du jeexital ci maanaam lu mel ne ak xunna guñ bàyyi wala euh, foo xam ne woon ne dañ koo waroon a izhaar ko nga xam ne day dugg ci biir njàngeeni alquran yi su boobaa loolu moom du yàqu julli ala kulli xaal naam ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na dafa am mbokkam moo xam ne dafa tawal dafa feebar ñu digal ko traitement boo xam ne da ko war a def ngir euh, feebar booba saafarawu te amut lumu mu traité woo amut lu mu ko jindee waaye daal am na mbootaay gum bokk goo xam ne ñoom dañuy leble waaye nag dañ cay teg intérêt waaye mën nañ koo lebal ngir mu mën a traité wu ba mën a wér muy laaj nag su fekkee ne amul benn pexe bu bu dul boobu ndax sañ naa jël bor boobu euh, mën caa traité wu wala sañu ko alhamdulilah xam naa paj moom docteur day ci ñi nga xam ne dañoo lot ci lu ñu fajoo jaadu na mu am ci hôpitaux yi te ñàkkul ne am na sax ay organisation ci wàllu social woo xam ne ku mel noonu dañ koy dimbali mu faju loolu yaakaar naa ne am nay hôpital yu mu am kon na jéem a góorgóorlu mën a jariñu ca loola fu mu amut nu ñaan suñ borom tabaraka wa taala mu am fa ba hôpital yëpp mën a maase sax kuy faju kenn duutu ko laaj dara loolu mooy li jaadu réew jëm kanam yëpp te soqaliku seenu paj noonu la dangay ñëw ñu consulté la duñ la fayu dara buñ noppee bindal la ordonnance na di demal ci pharmacie bi ci biir hôpital bi nga dem ñu jox la te laaj dara foofii e, kuy jëm kanam foofa nga war a dox jëm su fekkee ni mu ko waxee ne la demee nag na xam ne leble di ca teg intérêt moom riba la riba nag lekk ko moom mënta dagan ci benn situation ci bakkaar yu mag yu jéggi dayo yi ci la bokk di lekk riba borom bi tabaaraka wa taala ab contre yàlla la ko tuddee akub tam kon loolu lu mat a wattandiku la na seet ku ko mën a lebal su fekkee ne mbootaay googu mu bokk nanguwuñ koo lebal te duñ ca teg intérêt te sax ak bokkam ci mbootaay googu daa aaja seetaat ndax mbootaay goo xam ne dañuy leble di lekk intérêt kat googu mbootaay na muy doxe araam na daganut kon kooko bokk ca du jaaru wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana kii ab jàngalekat la nee na ci jamono ji muy itikaaf ndax mën naa corriger ay copie mbaa sax muy defar ay fiche di préparer ay ay leçon fekk booba mu ngi ci itikaaf bi ndax ñaar yi daal ànd nañu wala déet alhamdulilah itikaaf bi ka koy def mënta def lenn lu aju ci wàllu liggéeyu àdduna yi ñu nekk la man rek mooy yor kamerub alxuraanam di jàng wala muy julli wala muy tudd yàlla wala mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa eh, loolu la sañ waaye lu weesu loolu ci lépp loo xam ne daa jëm ci liñu ñu ci mbiri àdduna lu weesu lekk naana naan ak ca wana wa loolu di si ko booleeg itikaaf moo tax téléphone yaag yépp dañ koy teg côté jublu ci eh, yàlla ak i bëgg fàtte àdduna ak li ci biiram loolu mooy itikaaf moo tax mu beru dem fi bërëb boo xam ne néegub yàlla la boo xam ne lenn la koy soxlaal nekku fa mu beru foofee tëju fa nekk di jaabu yàlla loolu mooy itikaaf waaye su itikaafee ba noppi wëlbati ko ci liggéeyam ba mu waroon def ci école ba wala yu mel noonu su boobaa koy itikaafatul ci liggéeyam la nekk moo tax ku ko sa waxtu mayut jarul nga di ko jéem bu fekkee waxtu mayu la ko dangaa yor liggéey jàmbur boo xam ne mënoo koo bañ a def nekkal ci sab liggéey tey jaamu yàlla woor jotee nga woor bu julli jotee nga julli naam ahsanallahu ilaykum cheikhana kii nee na ndax mën naa jox azaka mbokki wujji yaayam wujju yaayam am ay mbokk yu nekk ca àll ba te aajowoo azaka ndax mën na leen ko jox alhamdulilah mbokki wujji yaayam de su fekkee ay foqaraaw lañu ki masaakin mën na leen a jox asaka ndax ñu ko yeyoo lañ naam jazakumullahu xeyran cheikhana kii day laaj nee na ndax ki nga xam ne dafa am gànt eh, jigéen ju am gànt ndax dagan na mu nekk ca kaw terrasse ba ca jumaa ja jumaa ji nga xam ne ca kaw ca terrasse ba ndax sañ na fa nekk wala déet alhamdulilah nekk ca terrasse jumaa ja terrasse ba bittib jumaa ja la du ci biir loolu moo tax réew yi organiser e, jumaa yu ëpp yu fa nekk ak i jàkka day am apartement bu nekk ca kaw boo xam ne mooy dëkkuwaayu imaam ja fa lay dëkk mag soxnaam ak ay doomam ak yépp foofa la chaque ne bitib jumaa la ci kaw terrasse ba la tiim ko waaye fa la dëkk waaye chaque ne fu ay jigéen di dëkk loola dana leen gaar te du yàqu dara nag ci loola lañ leen di tere mooy dugg ci biir jumaa ji ak sax fa dugg ci biir jumaa di fa toog loolu lañ tere jigéen di gis baaxam waaye su jaaroon ci biir jumaa ji jàll sax loolu kenn terewu ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi soxnaam daana toll ci diggante boobu yi mu yónni ko ak sijaadaam ab jullikaayam mu dem ci jàkka ji jël ko dikk indi joxoo ko ci néegam te fekk mi ngi toll ci période boobu yi naam baarakallahu fiikum cheikhana soxna si nee na day war ba yàgg rek mu gis deretu réglam nee mu def ak moom juróomi fan jëm juróom benn nee mu arrêté nee mu tàmbalee woor bi mu wooree ba am benn fan nag gisaat deret eh, te deret jooju daal ragal na ni deretu régal la waaye day loo xam ne musu koo dal da koy soog a dal ba tax ba sax ba tax sax am na ñum laaj ñu ne ko ah yow daal mën ngaa continuer deret ji daal terewu laa def dara muy laajte nag dëgg-dëgg moom ban taxawaay la war a am ci situation boobu alhamdulilah jigéen bi su fekkee ne dafa gis baaxam kooram daf koo war a daal di dog ba koor ga jàll mu fay su fekkee ta koo gis nag ba mu yàgg mu laab ba tàmbali wooraat ba mu yàgg mu gisaat ko ba mu ko gisewaat rekk day daal di dogaat xam ne bis booba moom mënu koo woor koor gi ci boppam dañ ko ko tere su fekkee ni mu ngi toll ci di gis baaxam kon bis boobu nga xam ne jàpp na ne woor na ko te gis na ca baaxam su fekkee da ko woor ngir teg ko ci fatwaab ko ko ko wax na xam ne bis boobu moom da ko war a fay ala kulli xaal ni ngay def daal mooy saabo laabee wooral saaboo gisee jar dog nga dog muy saaboo gisee deret yoo xam ne deret yi mbërëg la wala muy deret yi wasin wallahu taala alam ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na day liggéey ci benn entreprise boo xam ne duñ ay jullit mu ne entreprise ba nag dañoo chartal képp ku fay liggéey su dee jullit nga nga soppi sa tour def ko weneen tour woo xam ne turu turu yéeféer yi la muy laaj nag ndax dagan na ci ab jullit buy liggéeyee ci entreprise boobu mu def lu mel noonu alhamdulillah waaw moom la ni mu ko waxee def ne ab entreprise lu boo xam ne dañuy def lu mel ni ay téléphone maanaam ñiy woote ci société ba ñoom la ñuy jot xam naa bëgg nañ ña ñuy jot ñu jàpp ne fu sori lañ nekk maanaam ay tubaab lañ moo tax ñu bëgg tur ci boppam doon turi tubaab waxin yaat xam naa du ñàkk ne danañ ko soppi ba mu boog waxini tubaab ala kulli xaal su fekkee ne turu yéefar la comme noonu nga ko waxee lool moom du dagan ab jullit di ko def waaye nag léeg-léeg nit ki présenté boppam ci xeetu tur woo xam ne turu tubaabe la waaye boo ko delloo ci cosaan la du turu yéefar boo jëloon lu mel ne Joseph euh, ci cosaan la mooy la boo jëlee lu mel ne Moïse ca cosaan la mooy Moussa su fekkee ne moom daa tudd Moussa ñu ne kooku mu ne man a Moïse wax dëgg la te waxe na ko ci anam goo xam ne tubaabe na Yuusufa la tudd ñu woo ko mu ne ko Joseph yi wax ak yow wax na dëgg te tubaabeel na tur wa kon bu dee anam gu mel noonu la loolu moom mën naa gën a woyof waaye nag bu fekkee ne dafa tudde boppam carrément tur wax ne turu yéefar la moom loolu du dagan ala kulli xaal te it soppi googu day doon soppi waxin nii rek waaye du doon loo xam ne day soppi ay kayitam wallahu taala alam alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi mel na ni yëgsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee jotaay bi di sant suñu borom subhanahu wa taala ci ay tawfiqam di sant cheikhana docteur di ko ñaanal suñ borom subhanahu wa taala mu dolli ko kàttan dolli guddal fanam yokk wéram yàggal taxawaayam ñu yàgg ko ànd ak mbokk yi day jotaay boo xam ne foo euh, ko natt weesu ko ci ak solom mm, boroom xam-xam yi di ci jàngatee ñi digg doomu ci xam-xam it di ci nafar euh, waaye tamit ndongo daara yi soog a tamit di ci eh, góobe lu bare bare bari kon daal mënuñ rekk lu dul ñaanal suñu borom subhanahu wa taala cheikhana docteur yàlla dolli ko tawfiq allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim kon cheikhana kàddu gu mujj gaa ngoog alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala sayyidil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ñu ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangu ñaan yi Cheikh Abdallah te boole nu ko ak mboole mu jullit di nuyu mbokk yëpp di leen ndokkeel ci weer wi nu génn di ñaan borom bi tabaraka mu nangul mu jaamu yàlla yi te jégal nu rëcc rëcc te may nu nu teewe ko ay déwén yi déwén te xiir nu ci wéetal ko ak jaamu ko kay kon ñu tàggoo foofu rek ay bis gee di ñëw di ñaan suñu borom tabaraka taala mu àggale nu ci akuk man akuk tal sàmm nu sàmm leen sàmm sunum réew def fi jàmm ak tawfiq ak naataange amin ya rabbal alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu